Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatu mbokki jullit mbokki taalibe mouridi ni ngi len di nuyu te di len ziar te di len lokel ci bis bu mag bu tedd bi yalla tawféexala te nu tay ji ci tawféex muntaha, Cheikh mamadou muntaha mi nga xamne mo fi nekkal Serigne Touba te du dañ mukk di dotti ay tawféexam ci sunu kaw te bis bis bi firnde la ci. Euh, ñuy santaat yàlla subhaanahu wa taala di santaat Serigne mi nga xam ne moo nu tànnal sëñ Muntaxa teg ko ci sunu kanam te di ko saraxu te di ko ñaan te di ko yolwaan mu dolli koo wéral te dolli koo kattanal te dolli ko fa yàggal moo mboolem rakkam yi mbokkal Serigne Touba rawatina suñu jëwriñ ji di suñu kanam di Serigne Amsatu Mbàkke moom Serigne Chouaïbou Euh, ñu ngi koy ziar bu baax te di ko ñaanal mu mel ne tey Serigne Abdou euh, tey jii day bis bu beru bu wuute ak bis yi daan am ndax li ñu baaxoo woon a gis mooy bu ñu soxlaa dara lu ñu bëgg am baa ñu tiit dara lu ñu bañ mu am dañuy daje fii. ci jumaa ji ci ndigal ki fi nekkal Serigne Touba jàng fi alquran al karim gunge ko ay xasaayit ñaan yàlla lañu bëgg yàlla defal ñu ko bu dee lu ñu ragal ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala la ñu ragal yàlla dàqal ñu ko. waaye Serigne Mountakha nag day ku dégg yàlla dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg Serigne Touba ca jekk ko moom day ci ginnaaw. bi xew-xew bi jalle don jub te xel yeb jaxaso ñepp tit da wote fi nenañ delu ci yalla delu jaar ko ci Serigne Touba ndax ku bëgg delu ci yalla bo waxe wuti yalla Serigne Touba rek ngay gis ndax Serigne Touba mo dox sun digal yalla ca mat ko sëkk fess ko del ba kenn mënut a xol ci kaw ba seen yalla Serigne Touba rek ngay seen kenn mënut a xol ci suuf ba seen yalla Serigne Touba rek ngay seen kenn xol ndey jor kenn xol xool ba gis yalla ndax Serigne Touba da ko dar kap kon ku yem ci sëñ Tuubaa àgg nga ci yàlla subhaanahu wa taala fu jaar fu dul ci sëriñ Tuubaa nag ci musiba rek nga jëm waaye jëmoo ci yàlla ndax eh, wa axtaanilaahu baabahu wala yamur bil baabi ilaa bi machiyati la waxoon kon sëñ Tuubaa mooy bunt bi jëm ci yàlla moo tax sëñ Muntaxaa ne nañ delluwaat ci yàlla ci jaar ko ci sëriñ bi bi ñaanee nag gannaaw tiitaanga jooju ak jàqare googu ku ne gis na ne Sëriñ Tuubaa wuyu nañu ci wuyug yàlla mbir mi jàll na lépp set na benn ay amu ci sàllaaw li fi doon nuru aw ay daa delluwaat ci li sëñ Abdoulaye waxoon ndax daa waxoon ne réew mi moom jàmm rekk fi am Sëriñ Tuubaa fàggoon na ko ba noppi képp ku jël aw ay jëme ko fi ay woowee du la weesu mbooleem ñu yëkkate woon aw ay te nanguwuñ koo teg ci suuf ay woo yóbbaale na leen waaye ñu bëggoon jàmm ñëpp am nañ jàmm xam moo tax sëriñ Muntaxa wax nag ne gannaaw ñaanoon nañ yàlla mu may nu nañ dajawaat fii ñu ko ñaane woon am ngor santaat yàlla subhaanahu wa taala mel na nag daje buñ mës a daje daje bii ko gën a rëy ndax kat euh, ki lay may ku ne dalaa yërëm waaye ku la dolli dalaa gërëm ku la may dalaa yërëm waaye ku la dolli dalaa gërëm te nag ndolleen mu ko am ci lenn sa sëriñ Abdou lu da ngaa sant yàlla ñaanoon nañu yàlla may ñu ñu tajawaat fii di sant yàlla kon nañ séentu ndooleen ndooleen saayir ak baatin nañ ko séentu ndax euh, lii sëñ Muntaxa def day moom ñoo ngi sant yàlla di sant Serigne Touba waaye buñ ci noppee ñun murid yëpp amel amel nañ ko njukkal amel nañ ko cant cant gi ak njukkal gi nag nanu ko Serigne Touba wuute ak ñaan sëñ bi dolli ko wéral te dolli ko fay yàggal te dolli ko kattan ba naal yi mu naal yëpp mu yeggale ko tan ànd kook ñoom ci ginnaaw suñu jëwriñ ji di Serigne Amsatou Mbacké ak jëwriñam ji nga xam ne mooy magam di jëwriñam tey taxawu liggéey bi di Serigne Maam Morom Serigne Fallou ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax di soññiwaat bokk taalibe yëpp nag ci xew-xew bi weesu damay xew-xew bi day soññ la ci képp ku jëm ci yàlla soññ la ci képp ku yëngu ci diine waaye soññ la ci képp kuy wër sëñ Tuubaa ndax ñi ko doon xëccoo day laata ñoo sóobu ci mbir ma dañ leen xamal ne neen nguuruk àdduna gi ngeen di wut juróomi at rek ngeen ko ngeen ko mën a am waye juroomi at yoy li muy gatt gàtt jaral na len bañ bañ wax na jaral na len sen bakkan duñu yendal duñu fananal ñak ci sen alal ñak ci sen doole ci aduna rek lañ wut ana nun ñi bëgg yalla bëgg yëneenti bëgg señ tuba bëgg ko am nan lañ wara def kon ñun ñom war nañ aw yoon nañu ko yalla jaral nañ xol ci ñom lu len li jaralon nañ ko nañ ko ful ba muy yoon yalla jaral ñu ko ci suma ne yalla señ tuba la ci jublu suma ne yalla rek señ tuba la ci jublu ndax yalla mom sharafal dane yalla dafa tax boo téye ba jàpp na téye nga keroog nga téyewul dara ku bëgg a jàpp yàlla dëgg da nga jàpp sëñ Tuubaa kon noo ngi soññiwaat murit yëpp di jégalu ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf